Midi Culture. Serine sec coronavirus bi nan koy waxe ci Italie yegul fofu Mam Jara Fam Nekup député diaspora bi kon Moko daldi xamlé ci Italie Gamu nek la King FM ko mom mo nekkoon ganuku 9 11 kaddu yi Mbaye Ndiaye yëkkati ci émission fram ci télévision Futur Média nekkoon président Macky Sall yoon may na am mandat lolé kon askan wi ku nek joxe nga ci sa FRN wàll si nan kon ci japp gi nu japp gi Mari kon ba tax ñu daldi avocat avocat Bobé, kon jotna naa ab demande de liberté provisoire tay di bés bu àdduna wërngal këpp jagleele ONG yi rédaction King FM defu gëstu bu yaatu jëmale ko ci ONG yeeg fii nii ci réewu Sénégal ak seenub liggéey reportage bi tey ñuy waxtaane élèves yeeg kon li nu euh, jógtee léegi mu di di xeex ci biir l'école yi ndax seen i far li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole ne ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon taarixu démb ñuy dellu ci coup waxoon moo fi waroon a am atum 1962 leneen loo xam si dinañ ko waxtaane ci biile jotaayu xibaar moo di métier manager ak tolluwaayam nataalu Marianne Siva Diop gan gi ak yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy bureau Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel dama leen ko xecca bopp rek lay duggee ngeen ci yaatal gi ak jàngoro jile di euh, coronavirus gannaaw kon ba mu lëmbee réewum Chine jamono ji dafa wàll si ca Italie waaye kon bu nu sukkandikoo ci euh, maam jaara Fam nekk député diaspora bi euh, jàngoro ji nag ni ko askan wi di waxee yeggut foofu moom Mame jaara Fam jamono ji ñuy àddoo moo nga ca réewum Italie foofee la King FM jokkoog moom moo nekkoon ganuk ma ne détecté wuñ fa virus bi du ko wax parce que fi dëkk bi biir yu bari ñu ngi wax ni am na ko laal am na ñu mu laal am na fii am na Padova am na nel Veneto am na am na yeneen dëkk yeneen dëkk comme dukk dëkk yi nga wax sano mun nañu nekk yu bari mun nañ ko nekk ni nga xalaatee mun na ko ëpp mais man li ma jàpp mooy ampleur bi nga xamante ne moom la ñu jox ba mu indi cause au Sénégal nit ñi di woote nit ñi di sonal seen parents yi nekk fii ci cause boobu amu ci le pays na xëy na peut-être yakal nañ ko ndax wax deug yalla économie bi doxatul yu si bari nit ñi dañu xawa amna ci na ñoo xam dañu xawa ragal tay so gennon ci mbedd mi nit ñaa ngi dox seen soxla mhm. man dem lu ci mbedd mi la yendu j'ai pas vu ben nit bu takk masque mhm. benn mhm. nit la wax bu takk masque gisuma kon kon buñ la déggé dafa melné kon euh, situation bi fi mu toll nii la situation est maîtrisée euh, ci luñ euh, ni nga waxé évidemment la situation est maîtrisée tel que fi la santé du da ngay feebar dem ci ben hôpital ñu lay wéq ci bir naan la defal na nga na nga ko defoon ba muy neexee na nit ñi xam ni mhm. na xel yi gën dal benn sénégalais laa wax mhm. virgule sénégalais amul ci feebar bi mi ngi noonu nekkoon kàddu yi Maam Jaara Faam ca Italie kon lan doon jokkook moom foofee ñu wax ni kon jàngoro ji dafa daal di am xalif général des muri tamit lu jëm ci euh, jàngoroy coronavirus li mu ciy sàkku kon jullit yi moo di nekkoon àllarba bi nu dëgmal ñëpp dem ci jumaa yi euh, daal di fay wàccee kaamir ngir muuslu ci jile jilee euh, jàngoro moom Maam Jaara Faam itam waxtaan wu yaatu mu séq ak rajo King FM dellu si waat na ci Guy Marius Sagna mi nga xam si dañ ko téye ca kaso ba ba ci mbiri ñetteelu mandat bi nee na kon kàddu yooyu ca Mbaye Ndiaye yëkkati ba ci Mahamad Boun Abdallah Dionne euh, dara méngoowu ci ak li nga xam si moom lan war a def te it euh, ñaari nit yooyu dañoo war a daal di téye seen gémmiñ moom euh, Mbaye Ndiaye sax kàddu yi démb ci télévision Futur Média la ko daal di yëkkatee askan wet ku nekk joxe ci sa xalaat jaarale ko ci reportage Awa Seck. ñu fekk leen ci buntu kees ku Orange Money bi ñu toog. Moussa Ndiaye bi ñu ko laajee ba ban gis-gis la am ci lu Mbaye Ndiaye ministre d'État wax ci troisième mandat njiitum réew mi Macky Sall du lu ñuy sikki sàkk lu mën a nekk la ndax constitution may na ko ko moom lii la ci tontu. xam nga bu fekkee ne yow tiitoo dara def nga li nga war a def booy wàccee rek da ngay dem sa keneen ñëw mais nekk si nguur bu ba yàgg nga changé ay loi ay li nangam pour mën arrêté mais kenn doful nit ki moo war a goree ci Macky Sall moom lañ wax a bàyyi mu tontul boppam moom président mënul tontu waaw wala déedéet parce que moom bëgg na ko mais du la feeñal waaw mais ñi di wax dafa war a am ñoom am na lu ko tax ñu wax loolu kon nag ñoom nañu noppi ba ki ko mu waxal boppam troisième mandat moom lu mënul nekk la di ay kàddu Maguette Samb am na ñoo xam ne seen wax du yeggu quoi mais majeure partie sénégalais yi boo doon toog ci secteur yi di nga xam ne ñoom xam nañ ne Macky mënul am troisième mandat ñooñ nag bu ñu waxee ay mbay njaayaaf ay ñeneen ñi ci ànd ak Macky bu ñu rek ça veut dire que ne wax ji neex na seen jawriñ seen kilifa moo tax doo ci dégg muy leeral lenn chaque jour Sénégal dañuy dox si fulu coowal ñetteelu mandat bi njiitum réew mi saa yi ñu ko ci laajee du ci nangoo tontu lu leer donte ay ñegeñaaleem saa yu ñu say àddu rek di ci wax luy gën a lëndëmal xelu askan wi Awa Seck leneen coow loo xam si am na ci réew mi moo di njëgul courant bi nu yokk sabab kon collectif ñoo lànk nar a wàccaat ci mbedd di Ndakaar yi ëllëg ci aljuma ji waaye lu jiitu loolu kon am na nu njàppandalu ko waa FRN ba tax tamit ngir mu uh, layool ki la di Guy Marius ndax bàyyi ndëgëndiku gu mujjee gi nga xam ne maître El Hadj Amadou Sall déposé na ko démb Guy Marius Sagna dana antu am déet li leer ba leer mooy ñaar fukki fan ak juróom ñent ci weeru novembre 2019 ba léegi di bés ba ñu tegoon loxo activiste bi ca buntu palais de la république ginnaaw ba mu doon ñaxtu yokkuteg njëgu courant gi ñaari bàyyi ndëgëndiku yi nga xam ne avocat wam di maître musa Sarr déposé woon yëpp juge Samba Sall da ko neenaloon bu mujj mujj bi nga xam ne fanweeri fan ci weeru janvier gi weesu lañu ko déposé woon atekat bi la tax mu gàntaloon ko bokk na ci ñett yi mu di da doon ragal bàyyek Guy Marius Sagna jurati ak coow ci réew mi mu di trouble à l'ordre public naka noon it muy ragal Guy Marius Sagna daal di génn defoon la mu defaat ba taxoon ñu jàpp ko ñetteel bi di moom Guy Marius Sagna la ñu ko téye daa garaaw loolu fan yi weesu nag bëri na ay nit yu yëy yàbbi wala di dox ngir ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna Bougane 2016 wa front de résistance nationale di FRN ñi nga xam sax ñoo jël avocat bi di maître Elage Amadou Sall ngir mu taxaw ci ñu bàyyi Guy Marius Sagna ñom ñëpp daan nañuy fekk ci xex bi yenen kaddu yit daal di juk ñeneen nit juk nañu ngir daal di sakku ci église catholique bu Sénégal mu daal di yëy yàbbi ci mbir mi ba Guy Marius Sagna ñu daal di koy génnee ci kasso bi ci ay bëss bi yit ci la étomé nek ci bëtt salu mu réew mi ci Casamance njabotuk activiste bi nga xam fa la dëkk daal di yëkëti seen kaddu yit di naqarlu bu baax la ñu téye seen doom ci biir kaso bi ba léegi tey sàkku ñu bàyyi ko lu ko moyul fan yi ñu jëm daañu leen dégg bu baax kàddu yooyu yëpp di jóg jur ci ñenn ñi ak yaakaar ne fii ak ay fan yu néew ak bàyyi ndëganiku bi nga xam ne déposé nañu ko kii di Guy Marius Sagna daañu ko bàyyi mu dellu ci njabootam jaajëf Papa Ma Jaxate saar ngeen di woy di déglu di Culture ci rajo King FM di moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. tey la ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février àdduna wërngal këpp jagleele ko ONG yi di organisation non gouvernementale euh, taxit kon ñu koy màggal fii nii ci réewum Sénégal moom bari na ci ñoo xam si ñu ngi fiy jéem a bay seen waar di xeex kon ngir ñu mën a jëfe àq ak yelleefu doomu aadama naam ne léeg-léeg dañuy jànkoonte ki jafe-jafe. Kumbaba. ba moo xam ci wàllu yoon dogal yi nga xam ne gouvernement bi mu ngi koy jël wala sax ci nekkinu askan wi taxawaayu ONG yi dafa mës a fës ci suñuy réew yi ONG yooyu nag lu ëpp ci li ñuy yëngu mooy fexe ba àq ak yelleefu doomu aadama yi ñu respecté ko Amnesty International benn la ci ONG yooyu Mouhamadou Moustapha Diagne moo fa yor lépp lu jëm ci wàllu formation. Sénégal nekk nañ réew boo xam ne ONG yi am nañ fi taxawaay bu bu dëgër a dëgër déjà mun nañoo wax ne ONG yi bëri nañ bëri riwaay bi tamit euh, mbir yi nga xam ne nekk nañ di ci yëngatu wuutee na wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci wàllu développement am ñu nekk si mbirum solidarité affaire sociale am ñoo xam ne dañu nekk si question humanitaire donc euh, amaana bëri nañ mais bëriwaay la boo xam ne aussi leneen li koy mandargaay mooy euh, domaine d'activité yi maanaam secteur yi nga xam ne ci la ñu nekk di yëng di yëngatu bëri na torop donte ni nekk ñu askan wi rek moom moo leen ñor organisation yooyu dañuy faral di jànkonteel ak ay bàyyeekoo wala ci beneen wàll. jafe yi euh, bëri na li ci ëpp solo li ci ëpp doole mooy seen i jumtuwaay ah, matadi gi mu matadi euh, booy xool ONG yi nga xam ne euh, am nañ siège nga xam ne dañ fay nekk de manière régulière des koy compter booy jël ONG yoo xam ne aussi am nañ personnel nga xam ne ay permanent lañ ñu leen di fay régulièrement dañ koy compter booy xool ONG aussi danañ am jafe-jafe am xaalis bu mën a matal li nga xam ne dañ koy sumb ci ci liggéey ñu laal alalu état. ONG yi yàgg nañu am taxawaay bu mucc ayib ànd ak askan wi moo xam dañu leen xoxatal wala xool naka la ñuy taxawoo bëgg-bëggu askan woowu ci anam bu mu mën a nekk laaj bi kay mooy lu tax ba fii kenn mënul wax ci bailleur yi nga xam ne ñooy financer yooyu la ONG jaajëf euh, Koumba Ba ci boobule euh, gëstu yegsi nañu kon ci reportage bi tey nag euh, ñu defub taxaw lu jëmale ko ci élèves yi ak jàppante bi nga xam si dañ koy nemmeeku ci biir lekkool yi ñu dem bay xeex ci seen biir la ko sabab nag moo di seeni i faraka yu ca jëm ñu bërit ci askan wi daal di ci joxoñ baaraamu tuuma seen ay waajur reportage Aminata Ba. ci daara yi dugg doom yi ñuy faral di gis ay élèves yuy xeex ndax seeni far bu ci mujj ca Parcelles Assainies la xewee loolu nag ñu ñu tàllal suñu micro di ko ñaawlu. ñuy def loolu dañoo maturul rek parce que man pour man am na benn maturité boo xamante nit bu ko amee du def yenn yi nii di xeex ndax sa copain copain boobu ngay xeexal est-ce que bu subaa moom mooy rew sa jëkkër waaw déet kenn xamul ndaxte ki tax ngay xeexal moom amaana sa xarit la tey ji bu yàqee seen relation bu subaa nan lay demee que mu nekk pour tey ak pour suba góor moo jarul xeex léegi jàngatuñu léegi farantu di jangatu yu bon ci biir école yi xalé ñom ñoy doxanante seen biir bëgg na élève bi élève troisième élève quatrième kee rafet na sétu len né seen jang mo len yobbu seen li mo len fa yobbu dédét ñom légui farantu mo len fa yobbu bu ñu la indilee note sax note farantu lañ lay andi wajuri ño déssé def seen wareef ci xalé yi di xalaatu chauffeur bi bu féké da nga yar sa ni nga ko dina xamné sama wajur bañ na li wala sama wajur bëgg na li mais ko xamné xamoo li sa dom bëgg ak li mu bañ moom mënul xam li mu bëgg li mu bañ xalé aussi dafa am mouvement bo xamné bo ci ko

léegi dafa am dégradation des mœurs xale yu jigéen ñi léegi dañu doy waar xale yu góor yi tamit moom ndax xam naa loolu moom euh, day wane rek simplement suñu problème social ak comportemental ndax léegi dañu topp série topp film yi topp rajo yi ba léegi xoolatuñu vraiment essayatuñu saytu léegi suñu comportement quoi. fi ñu doon tàggatee ay ndaw dem ba léegi élèves yi di fa farantu bay xeexa seeni biir lii nag ci ñu ëpp ci ñu ñu dajeel jàpp ni jamono moo soppeeku. jaajëf Aminata Ba lycée Cheikh Amidou ba jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili ak ñaar. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. ci dendu Afrique lañ koy tàmbaleek réew million guinéen ñoom la ñuy xaar kon dimanche benn fan ci weeru mars ngir ñu ñëw nag tabb seen i ay député di ñu leen war a teewal kon ca pencum ndaw réew ma waaye it voté projet de loi bi nga xam ne fas yéene nañ ci jublu am ay coppite yu ñuy benn constitution mu nek ben projet bo xamné nak bu fekkente ne voté nañ ko ñom Guinéen kon ki nga xamné moy Alpha Condé di njiital réew ba fa bu ko nexé kon mu laaj ñettelu mandat ci présidentielle bi ñu nam amal ci weeru octobre atum 2020 projet la bu nga xamante ni nak projet soppiteb constitution bobu jurna ciowlu coow ci euh, dëkk ba na ci ñi nga xamné ñom ñoy intellectuel ya ñu upp ci expert yi nak d'accord nañ ni amna point yo xamante ni amna ke solo bu ci melni nak sur le plan social di nekkinu askan wa exemple bu ñu joxe waxee mooy njàng meek njàngale mi dafay daal di gratuite maam maanaam kenn du fay euh, pour dem jàngi école waaye it xeex ñi nga xam ne li nga xam ne moom mooy mutilation génitale féminine di yenn aada yu nga xam ne dañ koy defal jigéen ñi. ci dendu Afrique la ñuy des ba tey bi la yoon ñu utali réew ma Tunisie wax kon ci euh, gannaaw xaar bu yàgg bu fa am mujj nañ faa taxawal ab gouvernement. kon gouvernement bu Eliès Faxfax kon daal di nay am kon euh, jàppale ki nga xam ne mooy parlement ba mën nañ ko waxee noonu ndax kon confiance lañ ko jox ñoom parlement bu réewum Tunisie ab cabinet bu nga xamante ne formé nañ ko ginnaaw ñeenti weer yu ñu doon négocier négociation yoo xam ne yu tar la woon waaye nag war nañoo jublu ci li nga xam ne moom mooy dossier yi gën a jàmp fi mu ne nii nga xam ne dañ leen tegoon en suspense waaye nag waxtaan nañ ci diiru fukk ak ñeent ci ay waxtu di débat parlement ba kon mujj kon démb ci guddi jox ki nga xam ne moom mooy euh, gouvernement bu fax-faxa confiance ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay voix ñoo ànd ak moom juróom-ñaar fukk ak juróom ñoo contre benn abstention kott la ñu am ci total bu nga xam ne toll woon nañ kon ñoom député ya ci limuk euh, ñaari téeméer ak juróom-ñaar yu fa teewoon bu ñu sukkandikoo ci constitution réew ma kon bu fekkente ne gouvernement ba approuvé nañ ko ki nga xam ne mooy président euh, de la république ba fa euh, kon moom moo war a gaaw tabb kon chef ak membre yu gouvernement wam jukkib xibaaru biti réew yi ci xibaaru digg bëccëg gi ci rajo King FM Kumba Balan ci àndal dañ koy jeexale kon wax ci jàngoro ji la wu ñu ko waxee ci français daal dina yegg si kon ca Amérique latine ba fii nga xam ne gox la woon ba nga xam ne jàngoro ja teewu fa woon waaye nag ci réewum Brésil ñu ne la jaaree ndax nag dafa wëy ba ci euh, réewu Europe ak réewum Asie bu ñu euh, sukkandikoo euh, ci xayma yi nga xam ne def nañ ko ñu ne fi mu toy nii jàngoro ji kon laal na ci 40 dëkk ci àdduna bi maanaam ñeen fukki réew ci àdduna bi jamono ji kon am nañu kaawu coronavirus bu ñu sukkandikoo ci jàngat bi nga xam ne RFI ñoom ñoo ko def Brésil nag kon fi mu toll nii am nañu ñaar fukki cas suspect yu corona virus waaye nag fukk ak ñaareel nee nañu réewum Italie lañ jógee dañ fa wayaase woon ñuy lool nag kilifay réewu euh, Brésil ñoom ñoo ko xamle États-Unis nag ba fii jàngoro ji laaragu leen waaye président Donald Trump moom dafa génn euh, di joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñooy opposant ya di démocrate ya ak yenn ci média yi ñooy génne xibaar yu nga xam ne moom mooy jaxase xelu askan wa ak pëccëxoo ga ca ma kon fii tey la ñuy taxaw ci biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhaté Sarr maa ngi lay nuyu. Eh, maa ngi lay fay bu baax euh, Serigne Saliou Seck di nuyu auditeur ak internet yu rajo King FM. football lañ koy tàmbalee ko tournoi UFOA A ak coupe arabe u bi mu mel ni Sénégal ñaar yooyu yëpp yitteel na ko. tey jii ci alxemes gi équipe nationale football ci jigéen ñi euh, dina euh, nekk ca Sierra woon jamono ji di fa amal ak ay jongante ci tournoi UFOA A bi tey lay amal ñaareeli jonganteem digganteem ak Cap Cap lay doon gaynde yu Sénégal yu jigéen ni nak sen jongante bu njëkk eh, dañu daanon Guinée ben bal ci eh, dara budé nak coupe arab U20 bi la nga xamné eh, jamono ji ma ngay amé ci réewum arabi Saoudite quart de finale yi tay ci ngone gi lay tambali gayna yu ndaw yi yu Sénégal yi dañu ci dajé ak Bahrain bu ñetti waxtu toftalé fanwéri simili. dañuy wax kon ci walum football ak. digal basketball basketball ak digal bi nga xam ci kon fi ba dal nañ koy jaglélé ki lee di Cheikh sa mom légui instructeur des instructeur la ñu ko def maanaam ñi nga xam ne ñooy jàngalaate moom bokk na ci ñi leen di jàngal euh, mu bokkoon nag ci candidat yi nga xam ne ñoo doon def tàggatu gi euh, ci stage bu fi baax organisé woon euh, ca Dubaï ñetti jàpp juróom-ñaari fan ci weeru février gii ñu weesu ki nekkoon entreneur équipe nationale bu Sénégal bu basket ci jigéen ñi nag yéy na yàbbi ci li nu ko daal di jébbal ni ak nombal tànk mu daal di xamle ne nag mën na cee jëriñ réewum Sénégal bu baax baax teewlu cheikh instructeur moo xam ne ñooy ànd ñooy yi loi donc man FIBA dafa ma convié woon pour ma participer ñu douze instructeurs dans le monde pour ñu def stage boobu saa demee Dubaï nag mois de février bi du premier au sept pour def ko après résultat yi génn ñu ne jàll na Sénégal kay mën na si benn soo baax Sénégal fi nekkoon ñoom yi bëri mais bii dañ def instructeurs yoo xam ne ñoo war a ay instructeurs moo tax Sénégal ci ben, ku ne di bénéficier parce que formation formation la donc bu ñu bëggee expertise buy former ñeneen man je suis là la affaire bi mooy Afrique yëpp da ci bénéficier parce que on était trois trois africains deux franco ben franco tunisien ben franco marocain ak man ñoo fi nekkoon donc FIBA dañu soxla aussi pour l' Afrique ñu mën a former et ainsi sans pas de technique UGB amul problème mën naa ko gérer parce que mise en place des équipes mise en place des entraîneurs aider leen le coaching et tout amul problème mais bu nekk parce que bëggoon naa coacher ren UGB mais je vois que dina jafe trop pour mu mën ko def ndaxte dama bëri liggéey

andi ay tontu ci ngagne yi ni ci sen kaw. bokku na ci ngagne yoyé bi ci gëna moy Sénégal yi nga xamné euh, ñoo représenté réew mi ci walum boxe ci tournoi de qualification euh, jëm ci Jeux olympiques Tokyo 2020 yi daanaka ñu bari ngagne euh, nañu ñi ñu daldi tan bokku na ci ñi yëkëti yoyé lé ngagne Ke fi nekkoon champion bu boxe di souleyman Bay. li koy firndeel nag mooy Sénégal yépp danaka dañu leen dan dañu nërmeelu Thierno Seydou Ba di njiital fédération Sénégal bu box nag di ca indi ay leeral jàpp ne du tànneef gi mooy li waral gaynde yi daal di ñàkk ñu teew lu teewlu la suñu boxeurs yi ñëw kontaan nañu si ñoom trop ndax vraiment ils se sont donnés ku seetaan combat yi di nga xam ne nous euh, nañu dëgg dëgg dëgg dëgg te li leen séparé ñu gagné ndax ñun on est quand même mal tombé On a que fii ne Sénégal des na au niveau africain international des pays comme le le Maghreb a yeneen pays comme le Ghana le Nigeria le Cameroun Nous, ce sont des pays de boxe dañu bëgg boxe ils mettent beaucoup de moyens dans la boxe alors ñooñu nous, leen ngir mag mais est-il que nous ñu ne xale qualité ndax euh, avons nous daaw je place les pays de la CDAO nga xam ne Ghana ngi Nous Guinée Conakry ñoo deuxième derrière le pays organisateur sept boxeurs ñu médailles ñett or benn argent ak euh, ñetti bronze doo leen nañu mais xam nga kenn huit boxeurs jël huit médailles dont une en or Khadija bi ñu éliminé démb moo or bi après wilaya ku seetaan combat yi di nga xamé né ñi ñëw am nañu qualité bu baax euh, ñu yété la pression du premier round par Mamadou Ndiaye ak Sambou dañ ci genn bu baax mën nañu né deuxième round beeg troisième round yépp yëpp ñoko gagné won gañe woon mu nekkoon leeralu ko Thierno Seydou Ba di président fédération Sénégal bu boxe ginnaaw neurmelu gi nga xamné boxeur yu Sénégal yi neurmelu nañu ko ci tournoi de qualification olympique bi nga xamné mu ngi wëy ci Dakar Arena ba ca Diamniadio fi ak ñaar fi fan ak juroom ñent ci weeru février bii ñu daal di nekk jàpp leen ne fanweer ak ñetti ticket mooy yi nga xam ne war nañu ko joxe ginnaaw jongante yi euh, ñi cay ñi koy jël nag ñoo fas ne bokk ci Jeux olympiques euh, Tokyo yu war a am ci at mi 2020 euh, Serigne Saliou fii lañu ñu ci xibaaru tàggat yaram yi. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ci taarixu démb daanaka ñuy dellu ci euh, coup d'état bi ñu ni fi euh, am 1962. coup d'état bi ñu waxon ci digënté Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia. Mamadou Dia ex-président du conseil déportation perpétuelle Ibrahim Assar, Valdiodio Ndiaye Joseph Mbaye ancien ministre 20 ans de détention Aliuntal, ex-ministre 5 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de droits civiques. Tel est le verdict rendu cet après-midi par la Haute Cour de justice. lii di dogal bi yoon jël gàll ko ci kaw Mamadou Dia ak ñu nu wax ne ñoom la àndaloon bëggoon a coup d'état Léopold Sédar Senghor moonte de ay xarit tigi lanu woon waaye ca mujjantal ga tuuma yi moo leen tàqalee Mamadou Dia dafa weddi ne mësul waajal ab coup d'état jëmale ko ci Senghor waaye tontu boobe yayul benn yoon na àttekat ya nekkoon ca haute cour de justice ca noonu la daan daal di wàcc moom mi nekkoon président du conseil nekkoon it ministre bi yore wàllum défense ci lañ ko jiiñe ne def ab coup d'état te it nekkul ne Mamadou Dia rek lañ ca tuddoon ndax amoon na ñeenti ministre muy Ibrahima Sarr Joseph val Valdiodio Ndiaye ak Alioune Tall procès bi daal di def juróomi fan ñu tëj leen ràpp ca biir kaso ba nekk ca Kédougou lii lépp nag politique rek moo ko waraloon loolu di wane ne langu politique mënees na caa génne xarit firnde li moo di diggante Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor li ko waraloon nag moo di ne Sénégal ci ab régime parlementaire la nekkoon maanaam Mamadou Dia mooy rewoon politique gu biir réew mi Léopold Sédar Senghor yore politique gu biti réew waaye ñoom ñaar seen gis-gis dafa xawoon a wute ma Mamadou Dia dafa bëggoon ñu bañ a bay rekk gerte soppi ni réew mi di doxee ak sax yenn barab yi ci juróom-ñetti fan ci weeru novembre atum 1962 mu daal di yëkkati ab discours bu rëy bi ko Senghor dégloo xam ne loolu baaxul ci moom ci la defee ab motion de censure Mamadou Dia daal di yónni ay gendarme ci assemblée nationale lii moo ngi xew fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre atum 1962. sénégalais Sénégalais. Aujourd'hui, 17 décembre, la situation est grave, dramatique. Sur ordre du président du Conseil, le palais de l'Assemblée nationale a été cerné par une compagnie de gendarmerie. Les représentants de la nation ont été expulsés de leur lieu habituel de réunion

yamul foofu ndax nag nee na exécution sommaire bu nu programmé la woon ci atum 1974 ci la leen Léopold Sédar Senghor di sooga bàyyi ñaari at gannaaw ba ci la leen amnistie Mamadou Dia daal di dellu si ci làngu politique yi waaye amu ca ndam ndax crise 1962 bi nga xam ne jural na réewum Sénégal ay njeexintal ñu wéyal pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan bi yoon ñu wax kon ci métier manager loole nag képp ku ca yëngu da ngaa war a daal di def ab formation loole ki ni gisee moo di Moustapha Ndiaye yore lépp lu wàllum jokkalante ci universel loolu la daal di xamal Ndeye Mati Dieng ci ab reportage. manager di lu mënul ñàkk ci artiste bu bëgg def carrière Moustapha Ndiaye di chargé de com ak marketing bu jiifa universel di itam manager ne seen liggéey bi bi bi du lu ñuy tàndus. am na ñoo xam dañuy jóg rek ne ménager di ko ménager ba xëy artiste bi am benn faay boo xam mooy loolu te c'est pas facile lu ñuy jàng la am na loo xam tamit mën nañu wax ne don aussi ménager artiste yombul surtout c'est difficile benn artiste sénégalais dafa bëgg demal bopp te boo amul manager boo xamante ni jàng ko xamu ko day gën a problème moo dañuy gis benn artiste Sénégal mu toj depuis des ans moom Sénégal day rek mooy manager ak ñi nga xamante ne ñoo yore ci mukaay bi manager sa yére sa danga ko war tey booy génn tey lii nga war a def soo demee concert fii ngay taxaw nii ngay def seen communication baaxul su dee wàllu koppar mais après yaag artiste bi yéenay toog ci taaw bi yéen ñaar kese ngeen def seen réunion nga ne ko saawaay démb lii ak lii barki démb lii ak lii lii moo fi nekk léegi nu ñuy doxale fii ci Sénégal mën nañu ne artiste poste boo dégg am na manager moo xam bu jàng am bu jàngul Tafa ne ñoo ñee jàngul nag ñoo jara moytu ndax liggéeyub manager dafay feeñ ci artistam am. jaajëf Ndeye Mati Dia Midi ñu jàll ci nataal bi. bés ni tey def at kon la fi euh, Marianne Siva Diop daal di euh, bàyyeekoo woon génn àdduna loolee naka daal di tàbbal euh, naqar aw askanam ba ci groupe Futurs Médias bi nga xam si kon fi la doon liggéeyee loolu nag tax ñu koy fàttaliku ci bés bi Penda Badji bakkan bu ñam dund di nga ñam tee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février atum la génn àddina mu nekk bés bu ko Futurs Médias dootul fàtte rawatina ay soppeem li ko doon béggee ci télé bi li Mariam Siva Diop dem ca ba muy ndaw donte ni nag ñu bëri joxoon nañ ko at ci nga xamante ni amu ko woon juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 1986 la gane si àddina door école primaire ca Rufisque ca ginnaaw sa mu daal di dem ca Martin Luther King laata muy dem ca lycée paludisme tax ba mu demee ba nek mak mu daal di koy jàngi ci isik ci ginaaw sa mu daal di am station bu njëkk ci l'observateur toftal ci rédaction bu GFM fi nga xamanteni ni jot na def na fa ay at ta muy daanu ci télévision Futur Média danaka nak carrière am ci télé bi la ko ñu bëri xamee file la doon amal ay chronique di fa tourner itam ay reportage rawatina rubrique bu mu doon animé ci yeewu leen tuddee ko gëm-gëm yi won lol ci colin ba ci waxine Marianne Siva di ko reetaanlu tax ba boko dan daan par rapport ak jëmmam bu daam dippee boppam tay fin à travers émission yu doon faral di animer bokk na ci bi gënoon ragné nit ñi muy quartier général quartier général bobé ginnaaw bu mu faatoo amal nañ ko ab hommage Bijou Ndiaye di ko bokkoon ci bile plateau tikkaat ci dundinu Mariane Siva jëw moom munoo fexe ba mu def. soo ñëwee nga commencé jëw day ne da di jëw bu dee da di jëw ma dem ba ngeen pare franchement xajoon na fi ba ba ci kanam. naam dem na waaye ba tey ay jëfam ngi fi des Mariane Siva kàddoon yëpp doonoon nañu dellu ci yàlla tey benn at ba mu làkkoo Mariane Siva ñu koy ñaanal suuf ayaf toll ci kawam. te du dara lu dul jóge si place dem si place parce après dafa am leneen luy xew maanaam dee na nii gisatuñ ko mais nit ki dafay jóge fii nii ci àdduna dem fi nga xam ne moo di barsax jaajëf Penda Badji ci le natal doon fàttaliku tey kon ah, Marianne Siva Diop ah, moom tamit ah, bés ni tey la fi bàyyeekoon moom ak Ndiol nekkoon photographe kon ci IGFM bokkit ci groupe Futur Média ñu leen di ñaanal kon suuf woyaf ci seen kaw yàlla xare leen aljana midi culture ñu jàll ci gan gi. midi culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey ñuy dalal Marie Madeleine Diallo ci waxtaan wu yaatu mu seq King FM kon daal dinay dellu si waat ci ay li nga xam si moom tax ñu gëj ko daal gis ba ci tamit c'est mbir yi nga xam ci mom lañ xewal xalaat bi mu ci am laaj ak tontu doxna digënté mak papa ma jaxate sar Mari Madeleine Diallo ma ngi lay nuyu tay nga nek suñu gan ci Midi Culture ngay artiste bu mak ñu ràññee la waaye ay jamono ngi ni ñu gëj la dégg ana fan nga nek jamono yi. no gañé jëk jëk rek décrété ni dañu mak <laughs> muy lu nek dëgg waaye waaye mak ñi itam amna yu ñu mëna apporter mom la doon wax légui ci kaw waw mak nañu Golbert mëna nek nijaay mëna nek pam mëna mëna nek mën mëna nek yaay mëna nek magu yaay xel maa ngi fi ba tey xel mi naawul demul mi ngi fi toog di maa ngi ndar mais nag euh, léeg damay seeti sama doom yi ndax ñu ngi nekk Lyon waaye temps la génnoon naa tuuti ci Adja après temps yi def naa benn euh, ay séquence si benn film boo xam ne tv cinq la war jaar bu tudd Wara temps yi dugg naa Idole dafa génnagul xëy na nekk yaayu Pendita ak Mary donc ñu ngi duggaat nànk-nànk pour mën a itam apporter suñu pierre à l'édifice ndax euh, buñ ñu woowee moo di am na xëy na lu ñu gis xëy na bu ñu ko ci apporter dana am lu muy lu mu indi ci paysage audiovisuel bi mais li ñu gënaloon nag mooy am sunu yëfu bopp. boo nee da nga bëgg am sa yëfu bopp loolu lu muy tekki. xale yaa ngi nekk ndar macha allah di ay artistes yu bari yu góor ak yu jigéen ak ay xaleel mais encadrement la ñu amoon et dañuy ñëw ndeysaan vers nous pour qu'on leur serve d'escalier pour mën a atteindre seen ay objectifs mais quand il y a pas les grands moyens doo ko mën a def daa am xalaat bi tu peux leur donner des idées tu peux leur faire quelques petites formations individuelles non ce mais li ñu nous c'est vraiment de pouvoir faire de grandes formations si écriture de scénario ci régie plateau si régie son lumière pourquoi pas pour que Saint-Louis devienne un jour le Saint-Louis Wood comme Hollywood, comme Hollywood dont on a toujours rêvé parce que ñun suñu que c'est un riche patrimoine architectural culturel et tout ce qui s'ensuit mu am lu ñu jamono yi ci pièces de théâtre série muy lolu ban gis-gis nga ci am. léeg nga dégg-dégg ben saga ma defe ne xeyna koku kooku dafa mais puisque nit daf ko def ken waxul dara parce que xeyna na min miin nañ ko xam nañ ko il fait partie des plus grands mu gis ni léegi xalé yu ndaw yeeg yëpp ku tourné rek da ngay daal di dóor sa ben saga ki léegi ma ñëw def ka ni nangam nangam té lolu ñun bokul ci sunu yar wajuri dañu yaroon ñu ñu ñu ñu am un petit peu de retenue do ñame sax xol mag xol yu rëy yoy ba ëppal sax dañ la naan ëppal sa rido bët moo di il y avait une bonne éducation bo xam ñu ko mais je crois qu'on est victime un petit peu de ce qui se passe dans le monde parce que le monde est devenu un village planétaire di xew fii ma nga xew fële léegi yaa ngi koy il y a koy gis mais moomuñu nous, nañu garder li ñu moom c'est vrai que le président Senghor avait parlé de d'enracinement et d'ouverture mais ouverture c'est la nga xam ne moom C'est Occident bi am ci lu baax ñu jël ko seet ñun nañ ko defee ba xam du yëngal sunu piédestal bi ñu sunu maam yi Marie Madeleine Diallo ñu ngi lay jaajëfal bu baax tey jii nga nekkoon suñu gan ci Midi li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck émission faram fàcce bay xew ca télévision Futur Média la fa xewoon demb daanaka yéene kaay nu xëyandool ñoom ñëpp xëy di ko faram fàcce yéene kaay Futur bi ne ca télévision Futur Média la xewee ca émission faram fàcce ba tax mu koy faram fàcce ponk par ponk ubbi l'observateur journal U 15 angle corniche bi ne Pape Ngagne Ndiaye moo dalaloon ministre d'État Mbaye Ndiaye mu costume mu cravate toog di wax ci wax ji ñëpp bëgg ko ca wax muy waxi troisième mandat la mu ca wax moom Mbaye Ndiaye moo di ne njiitu mi di président Macky Sall bu bëggee samp ndëndëm ci élection présidentielle yu atum 2024 mbindeef mënu ko ko tere maanaam ak nekkam candidat wala sax mu laaj ñetteelu mandat yoon ci boppam moo ko ko may Mbaye Ndiaye ne njiitu réew mi di président Macky Sall li mu wax moom la constitution bi di cartum réew mi wax te nag ministre d'état bi nee na président Sall ci 2019 bii lay soogaa tàmbali mandat 5 ans kon nag dese na ko beneen mandat 5 waaye nag ba fii li jaaxal ñëpp moo di le mot consécutif laas yéene kaay ne ministre d'état Mbaye Ndiaye kay xalal na yoon wi président Macky Sall ne ko daagul nu mu la neexe yaay bañ kenn mënu laa tere am ñetteelu mandat Les Échos ne gannaaw Mahammed Boun Abdallah Dionne Mbaye Ndiaye dugg na ci coowul ñetteelu mandat bi ba noppi di leeral la tax président Macky Sall mën a am ñetteelu mandat Mbaye Ndiaye ne bi constitution bi di wax deux mandats consécutifs de cinq ans boobee njiitu réew mi di président Macky Sall ci mandat juróom-ñaari at di sept ans la nekk kon nag mandat bi mu nekk bokku ca Vox Populi ne léegi leer na mbay Ndiaye tëj na waxi ñetteelu mandat ba xam le ni président Macky Sall yoon may na ko li ko yoon mayutu moom président Macky Sall El Hadji Amidou Kassé moo ko wax moo di dëkkal réew mi ci ab campagne électorale ci Sud la ko wax baax yéenekaay bi ne moom mi fi nekkoon ca pale ba bu yàggul dara waxtaan wu yaatu la séq ak ñoom wax na ci réew mekk ni mu sëngéeme mu njëgul courant bi nu yokku doxaliinu nguur gi fi nekk ba ci dialogue national bi soleil national ne dialogue national boobee président de la république lu dëggu te tënku la cay xaar li tënkuwul dëgguwul moo di ànd bi am ci biir Benno Bokk Yaakaar Mamadou Ndoye moo ko wax ubbil la tribune ci biir journal des médias bi waaye LD bi ne tas yaakaar la njiitu réew mi di président Macky la mu doon wane laataa jotee moo ngi mel ni Angleterre ak pombiteer lu jëm ci ñi mu àndal muy gaay yi fare ci benn Bokk Yaakaar li ci Mamadou Ndoye bu LD gis moo di ne ànd boobee dara dëggu ca intérêt rekk moo ko lal ndax naka punkal di leader ya ca nekk yépp daanaka jamono ji ay surgay Macky Sall la li ci gën a doy waar te Mamadou Ndoye wax ko moo di ne nee na jamono ji réew mi ci boppam moo wagasu boole ci sëngéem exclusif yéene kaay ne leneen li président wara a lijjanti moo di parti bii di APR ndax nag journal bi nee na ca biir APR ña fa duppee seen bopp opération commando noppi nan dal ci kaw ñoom Amadou Ba ndax traiteur lañu critique yene kay ne ñenul dippé ay traiteur tay wax ni dañoo bëgg suufu njiitu réew di président Macky Sall renseignement généraux yi feñal nañ leen ci ñatt lañu tollu té ñom ñëpp ay punkal lañ ci biir APR muy Amadou Ba Aminata Touré ba ci Mahamat Boun Abdallah Dionne borom wax juré ji fam yi bokku ci Macky 2012 melni kuy xamal renseignement généraux yoyé dinan leen bolé leen ci maître Moussa Diop ndax naka ci la bokku andandoy aji mbergan kanu tay yokku ci ne kuy set traiteur wala ngay wër ku mëna deub li ñaba ex ci maître Moussa Sarr jappal ñi japp ci collectif ñoo lank ñoo bañ ba tay bayé gunu daanaka yéen kaay yi nu xëy ndool ñoom ñëpp a xëy dinu xamal ni moo taxit am na njàppandalu ko Pape Diop bu bokk gis-gis ak punkal yi bokk ci front de résistance nationale waaye fereen sax xaarunu lu toll ni tarfatal ay ni ndax ut nanub ba mu dugal ab demande de liberté provisoire ngir ñu bàyyi Guy Marius Sagna waa ñëw lànk ñoo bañ ne suba ci aljuma ji dinañ wàccaat ci mbeddi ndakaaru yëngu-yëngal ngir ñu wàññi njëgul courant bi ba noppeet bàyyi seen naataango ba ñu téye ca biir kaso ba yi nekk ci xët u njëkkul l'observateur journal uri 15 angul corniche bi ne ñetti kompaloo seenu patron dajji këram sàcc fa ay or ay jama ak lu tolloo tollook téeméer ak ñaar fukki million ci xaalisu CFA wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture tey kon ñu andil leen euh, Sori Kandia Kouyaté woy bi kon mi ngi génnoon weeru février atum 2018 ñu teewlu. mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon seetaan ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñeel na bu baax a baax Kader Lo Abdoul mi nekkoon ci euh, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci waat wëyal King Feeling lu mooy loloot maa ngi jaa jëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.